suñu Sénégal neexul danga yenu loo attanul ku suñu Sénégal neexul danga bëgg loo moomul ku suñu Sénégal neexul dal leen nag jàmm ci seen émission li fi nekk comme niñ leen koy defalee saa su nekk tey nag li fi nekk dafa doxantu ba marché central fas yéene waxtaane alcool maanaam sàngara ndaxte nee nañu Sénégal mooy 44e pays ci Afrique boo xamante ni ñoom ñoo gën a consommer alcool ñu tase teg suñu benn xarit fas yéene koo laaj loolu lan moo ci xalaatam sëñ bi ñu ngi lay ziar. delloo ziar. tur bi naka la. man la Ndiaga Fall. Ndiaga Fall émission bu bees bu ñu naan li fi nekk buy daw prestige Thiès dañ ñëwoon tey pour laaj la sàngara bi maanaam dañu ne Sénégal moom mooy 44e pays. ci Afrique bo xamanteni ñom ñoo gëna consommer sangara loolu lan mo ci sa xalaat. Euh, loolu si sama xalaat lool bo ma ci waxe amna na lu ma si xam amna na lu ma si xamul ndaxte da naka léegi dafa melni sangara mo ci dundu way ndaxte tey xam ni Sénégal dëkku diine la dëkku l'islam ay kilifa yu mag ñi ngi fi mais amna ay usine yu defar sangara tay xalé yi ko ci gis muy dawal Jakarta wala auto bari na fi ño xamanteni ñi ngi naan sangara bañ nan ko ba ay chassé lañ ko doon def nan lañ ko tuddé jakarta waaw te dafa bari genn wal gi ñëpp ay julit lañ boy xol man koñ bi ma dëkk amna ay julit amna ay chrétien mais tay bu fet joté wala dara ñi ma fay gis ñi mandi ñëpp ay julit lañu nenañ ay julit lañu te julit question du question ka julit man judd naa fekk ñuy julli rek ma ni jullit laa jullit du noonu jullit dafa am nun koy jefe nee na jullit lan dañuy naan sàngara di lekk yàpp mbaam boole si li catholique yi war a def léegi ñun ñii mbubboo jullit ñoo koy def bëri na waaw tey boo demoon tey boo gisoon nit man di daanu fii boo xoolee buñ la laajee moom turam turu jullit la lay jox kon tey bu doon catholique yi kese xëy na sàngara du demee noonu kon tey xëy na sàngara dina wàññeeku wala njëg gi wàññeeku te it yombal gin ko yombal la ndaxte sàngara tey boo da ngay dem benn kiosque sax fekk ñu fay jaay sàngara tey boo demee Auchan bi dañ koy jaay sàngara bu njëkk dan na wax nit boo mandee si mbedd wala ngay naan si mbedd dañ la war a ramas waaye léegi da ngay naan ba ni tërëf di daanoo ko jóg kenn du la ramas duñ la faale xale yi buñ la yuuxoowul wala xale yi buñ la yuuxoo sax da ñëw fekk kenn mën na romb sax né eh, bay leen jàmbur wala ñu créer leen té ñun bañu nekké boy bo mandé da naan da lay kepp ndox wala ñu door la wala ñu def la dara mais légui sañoo ko ci ku lan mo tax nit ñi di mandi lan mo waral lool ah man nag xawma lu waral lool waye amna na xamanteni xamante nan problème la mais mënuma gëm ni yow nga am problème ba paré am wala nga am problème xaaliss jëlat xaaliss di jënd sangara sangara bu gëna ndaw mo gëna cher boisson kon ku nekk xëy na ak bëgg-bëggam xëy na ñoom dañ koo def pour bu buñ waxee ça fait ñu naan xëy na problème moo tax wala lii mais gëw lool seen bëgg-bëggu bopp la moo tax ñu koy def. sëñ bi ñu ngi lay jaajëfal Prestige TV yi jaajëfal na la bu baax. jaajëfal naa leen yéen ca kaw ca merci. batay ñi ngi ci seen émission li fi nek ñu fas waxtane sangara bi comme ni ma leen ko waxee léegi ñi ngi taseeg eh, suñu benn frère sëñ bi na nga de. ah ma indi sa wa bien. Ya? tur bi naka la. man Mamadou wad la tuddu Mamadou wad nañ ñu ñew tay e fas waxtane sangara bi parce que dañu né Sénégal mom moy 44e pays bu bok ci Afrique bo xamanteni ñom ñoo gëna consommer sangara té né nañ tamit Sénégal eh, julit yé fi ëpp. yow loolu noo ko jàngatee. waaw ni ma ko jàngatee mooy euh, dama gis ñoo xamante ni bon sàngara alku na leen ñoo xam ne ay jeunes lañu sàngara rey leen ñoo xam ne ay musulman lañu seen papa yi musulman seen yaay musulman doon famille musulman mais ñoo dàq consommer alcool. comprendre ma la j'ai des yoo xamante ne ay grands yoo xamante ne alcool moo yàq seen avenir te bu ñu jigéen ñoom ay musulman lañu aussi état bi aussi ñoom ñoom ñoo def euh, politique boobu depuis temps Senghor la woon dafa yàgg. yaa ngi dégg parce que bu dee affaire u sàngara Senghor moo fi indi licence bi yaa ngi dégg boobu ba léegi nag kenn mun ko fee dindi benn gouvernement jéem ko fee dindi yaa ngi dégg parce que loolu gouvernement moo ko fa mën a dindi parce que dañuy euh, yàmbaa ji moo gën a bon mais dama gis ne sàngara moo gën a bon parce nit mën na tox yàmbaa pendant vingt ans bon xëy na du ko feeñ wala mu def ko dara mais sangara boo ko defee un an deux ans mu commencé feeñ sa yaram commencé yàq sa yaram nga commencé neewi loolu suñu santé baaxu ci te loolu euh, euh, euh, santé bi aussi ñoom ñoo waroon nag xeex loolu parce que déjà cigarette baa ngi nii ñu def ci photo boo xamante ne tey boo gisee doo doo toxu ci cigarette mais sànga moom ñoom politique boobu ñu def pour dindi fi cigarette bi mun nañ ko def pour jéem fi dindi sàngara bi parce que sàngara bi aussi ñoom ñoo ko fi dugal ñoom ñoo joxe licence yi lépp ñoo ko fi def même am na benn ancien ministre bu fi nekkoon nekk fii à jox ay tubaab licence ñu bu fi ma ñu yaa ngi dégg pendant des années boo yu bëri si lañ yàqu ay sachet cent franc comprendre nga loolu état bi xam na nu mu demee te kooku c'est un ancien ministre comprendre nga bon ñun nag dañuy xeex pour loolu jóge fi li ngeen def vraiment lu baax lu rafet la parce que idée bi ngeen am idée bu baax la parce que jeunes yëpp ñu ngi yàqu ndax sàngara di nga gis ku fayee ko salaire lépp jënde ko sàngara man gis naa ko ay père de famille yaa ngi dégg loolu nag vraiment li ngeen def moom rafet na baax na trop. mais lan mooy lan mooy poussé nit ñi à ce que ñuy naan. non li leen poussé ñenn ñi affaire yu géré moo la ci dugal parce que étant jeune boo yàggee ànd say copin ñu commencé di mandi yow loolu mën na la ci dugal nga dem ba accro te sàngara boo xësee ba mu jaxasoog sa deret c'est fini ji moog drogue ñoo yam comprendre li ma la wax am na ñoo xam aussi problème moo leen ci dugal ñuy naan yaa ngi dégg am na ñoo xam ni bon milieu moo leen ci dugal am na affaire bandi bandi moo ci dugal. te sàngara moom ñëpp xam nañ ni baaxul sàngara moom buñ koy euh, taawu saxaaba yi ba am benn euh, waaye boo xamante ni dañ ñu ko léegi da ngay tëdd sa yaay wala nga rey sa doom wala nga naan sàngara ba mu naanee sàngara tëdd na yaayam rey doomam kon moo tax naan sàngara baaxul boo ko defee da ngay tàqali ko ak sa sago loolu doo xamante foo nekk dangay ngay ñàkk fayda dootuñu la respecté ti yaa ngi dégg kon xam loolu baaxul loolu gouvernement bi moom war na cee mën a def ay jéego yoo xamante ni vraiment ñu jéem ko arrêté ci dëkk bi même en sax dañuy arrêté heure de naan en Europe dafa am heure yoo xam dañ naan la heure yi doo jaay mineur sàngara mais fii xale boo am deux ans sax bu ñëwee di jaay ma sàngara ñu jaay ko sàngara et yi ne ci dëkk bi da ngay nekk sa famille di jaay clando sa njaboot ne ci biir kër gi ngay jaay sàngara xale bu ñu màggee naan ko sàngara la ñuy doon du garaaw si ñoom loolu lépp aussi gouvernement bi ñoom ñoo mën a xeex lool pour mu dañ mais vraiment micro territoire bi ngeen def mom lu bax la ci mom parce que ñu fatali ko lolu parce que lolu nit ñi jaay bàyyi ñu seen xel mais mi ngi yak population bi man j'ai vu des cas yo xamanteni ay boy ndaw lañu samay morom lañu doon mais boo leen gisee dañu fon am nañ 90 ans ndax sangara sangara mom baaxul gudi baaxul bëccëg lolu daal laa ci xamone lu mën a wax merci. sëñ bi ñi ngi lay jaajëfal bu baax jërëjëf. ben problème merci. Michel fay gérant bar euh, le Palotin chez Michel Thiali abattoir. li waral nit ñi di naan du dara c'est juste pour euh, euh, besoin la rek quoi pour man besoin la quoi du du du lu bon ku jàpp ne lu bon la aussi man jàpp ma ne lu bon la quoi non man damay mandi mais damay damay contrôler wu ça dépend ça dépend quoi ci ci nit ki parce que da ngay gis ku nga xam ne meroon na balaa muy mandi mais day profito ci alcool bi pour def lu muy def ça je trouve que c'est pas normal quoi buñu ñu abusé wu ci alcool bi pour def li ñuy def wa lim leen di lancé moom bariwul quoi mooy buñu ñu abusé wu ci alcool bi pour euh, ñi nga xam ñoy def kat yi parce que da ngay gis sax police ñu japp le léegi ñu gis nga xéñ alcool ñu né ah il a bu motax muy def li bon je dis que c'est pas du noonu quoi du lolu du lolu du né dañu nan, rek motax ñuy def lu ñu neex déedéet du loolu quoi day fekk ne avant ñu mandi nekkoon na seen xel bu ñu mandee boof ñu profité ci occasion pour def ñu def mais alcool wax dëgg yàlla bonul te taxul kenn bon. da ngay gis euh, père de famille yu nga xam ne dañuy jóge liggéey au lieu ñu dem ñibbi mais dañu préféré ñu jàdd ci baar yi bon toog jël benn dose ba pare soo ko dem c'est juste que problème yi ñuy fekk gàlle la quoi parce que da ngay ñëw dem liggéey rek problème la nga jógee kër ga. dem liggéey problème la nga jóge fi ngay liggéey fekk kër ga problème aussi xam nga ak coowu xale yi jàppal bàyyil yooyu yëpp tam problème la moo tax dañuy faral di jaar ci baar yi jël tuuti dose ba pare soog a jàll fële quoi. puis musulman yi bu ñu bàyyi woon naan pour man ñun dañuy tëj daal. suñu Sénégal neexul da nga bëgg loo moomul ku ne suñu Sénégal neexul